Thank you.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 baayam ñëpp nanguloon na ko ni mooy ilimaanu ilimaan yi di cheikh Abdou Khader Mbacke yanul yàlla taas ci barkeem sama teew fii nag président Abdou Diouf moo ma téléphoné ca sama kër ni ma maxtaara ngoogu miin ko ci Pedro dama bëgg lii ko sang bi jox ki doonu sëñ baara doonu xaadim rasul di siidi maxtaar dénk ko ko ak gor yi xam ni noo daan organise lii nga demen ba ca place ba yow Aj suur waxal ma ca tuuti di nuyu ki représenté la chef de l'État May Ndiaye mi xam ni moo fi représenté le gardien de la constitution monsieur Macky Sall di nuyu ñi fi toog ñëpp li ma président Abdou Diouf wax nag laa leen bëgg nettali ne doomam ji xaritam bi soppeem bi di Makhtar Diouf fab lépp jébbal ko xaadimu rasul ne mbégte moomu masu ko am ne moom ci boppam en 1988 coow li dafa bari lool nuy lakk oto yi di lakk kër yi mu seeti baayam ba xaritam ba soppeem ba Cheikh Abdoul ba mu ko seetee Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ni ko demal Abdou yow na sa xel dal xam nga ci kan laa làq mun ko déedéet mun ko làq naa la sama gannaaw baay xaadimu rasul te ku nu làq ci xaadimu rasul ci gannaawam dootu am dara loo jaaxle abdu demal teraanga lay téeñ bay laa yóbbu xëyaamati ne loolu mënu ko fay kon tey bu nu tuddee maxtaar bés bii mu coordonné ko am na yeneen gor yu ko tuddee woon waaye maxtaar bi mu ñëwee nag yokku na sëñ Fallou maa ngi lay ziara nga joxal ma sama ziar sama xarit ba sama soppe ba sëriñ Cheikh bu Cheikh Abdou ak sëriñ Moustapha mu sëriñ Abdou Khadr ak sëriñ Bass mu Cheikh Abdou Khadr ak waa kër Xaadimu Rasuul yëpp sama sama ziar boobu nag boo ci jógee nga joxal ma ko sunu sang ka xam ni mooy sang bu tedd ba Ablaye Mbaye peex la koy wax ni Ablaye Mbaye daanal xar mu gën a joxal ma ko Mansour Mbaye muy kan mu Sidi Maxtaar xalif général Mouride yi di gërëm ñëpp amoon naa it yóbbante ci commission ak ñi ni noos mbir mi noo ci jiitu jóge ci xam ni mooy Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye mooy moom muy Amadou Ba ne lu mu jàppoon ci àddina ci ñaar rakk yi at mu jot la mu defoon def ko yokk rek ndax xam na këram ba sëriñ Bass Abdou Khadre ñëwee këram ca mu tàllal ko loxoom ñaanal ko sëriñ Bass ñaanal ko ci barke baayam cheikh abdou xaadir ilimaanu ilimaani ak ci barke maamam xaadimu rasul la xamoon ne incha allah allah la wax ni lii muy wut dara ci jot mbàkke balaacha seydi fadul fii di gërëm sama jarbaat am lay may peex ak ñoom xale yëpp ndax ñoom ñëpp sama gënaan loon topp pe maxtaar bu ragal dara maxtaar bu ragal dara ku siidi maxtaar joxañ siidi maxtaar joxañu la xaadimu rasul la joxañ rasulullah lay joxañ ala di gërëm nag sa jabar mam ami ñang di sotu Charles ñang kër googa di sa maam fa la daan dal Seydi Fadilu kon ñang boo defee nii wàcc ga allahuma salli ala seydina muhammadu di nuyu di ziar autorité yi yi nga xam ne président Macky Sall yebal na leen fi ñu mën cee lim ministre d'État Mbaye Ndiaye ñu ngi may wax ne gouverneur mi ngi ci yoon bi Abdoulaye juf saar mi ngi ci yoon bi da doon def possation de service di sunu sëriñ sëñ fàllu Abdou Khader Mbacké mi nga xam ne mooy sunu imam moom lañu sëriñ bi booleel mu mot ko lool di ziar ay njabootam ay mbokkam yi mu àndal ñu mën cee ziar sëñ Cheikh Ummi Mbàkke bu sëñ Fàllu xam ne sëñ Abo mu sëñ Fàllu di sama xarit di sama sëriñ moo ko yebal ak délégation bu takku di ziar sëñ Moussa Mbàkke ak sëñ Issa Mbakke bu sëñ Moutalla sëñ Mamor yebal ko fi yebal leen fi di ziar sëñ Dan bu sëñ Abdoulaat sëñ Sidi Mbakke wooma yebal ko fi ñooñu daanaka bu ma leen tuddee mën naa wax ne tudd naa njabootu sëñ Tuubaa yépp waaye nag duma fàtte suma xarit sëñ ay sa Mbakke mu sëñ Sidi Mokhtar ànd ak délégation bu takk ñëw ci turu sëñ Sidi Mokhtar Mbakke di di ziar sama xarit sama frère sëñ Cheikh Aliou Mbakke mu sëñ Aliou mu sëñ Modou Moustapha di sama xarit ñu yàgg lool maag moom lu ma nekk rekk ma nga ca mu teewal fii. sëñ Cheikh Anta Mbacke bu Daaru Salaam sëñ Bas Abdou Khoudous ak sëñ Moustapha Lakram xam ne dañoo am ngànt génn di nuyu sama mbokku taalibe yépp yi teew fii di leen wax ni sama xol sedd na ci lii sedd na xol di leen wax ni rek di fàttali li ñu fi tax indi muy julli géej gi di loo xam ne lu am solo la maanaam sëriñ bi def gim ko def ci géej gi loolu ñun war nañ cee jàng lu bari maanaam nu ñu war a fonkee sunu diine fonk julli ca waxtu ba ak itam boole ci ngor ak fit ak jom ndax ba sëñ bi def doon kéemaan ci moom waxtu bi jot na war naa julli ñu tere ko julli ci gaal gi mu dem ci géej gi julli waaye ñun nag ñun dafa rëy ci ñun ñun weesu na kéemaan ndax kenn defu ko fi te kenn gisuma kenn ko fi def sëñ bi dafa nii samay kéemaan samay miracle samay miracle sama miracle mooy samay bind lool loolu mooy samay miracle mooy samay bind waaye loolu doon miracle ci moom waaye ñun nag lu rëy la woon ci ñun kon nag nañu jaayanteeg sëñ tubaa fexe ba ñu góorgóorlu ci li nga xam ne loolu lañu ñu digal mooy julli fonk julli ca waxtu ba ak itam ak ngor bi ak job bi loolu daal mooy fàttali julli géej gi di dellu si li sëñ Muntaxa waxoon bërki démb maanaam ñaari fi ne delloo suñu bopp suñu boroom ci yàlla ak yëkkati baatu yàlla ca kaw defe naa ne loolu lañuy góor góorgóorlu di def nii di leen wax ni lii ndigal la woon lu jóge woon ci sëñ Saaliwu Mbàkke jaar ci ku tedd gi sëñ Muntaxa loolu dama ci taxaw ndax sëñ Saaliwu man mooy sama lépp di ko sant bu baax fii fii ñu taxaw sant sëñ Saliou bu baax a baax waaw li koy finde nag njabootu sëñ Saliou yëpp ngi ni toog waa këram ñëpp ñëw nañu kenn desu ñoo ngi leen di sant bu baax duma ma fàtte sama maam sama sëriñ sëñ Abdou Lahad Mbacké waaw ndax kooku moom moom moom moom moom moom moo def lépp ci man lépp waaw waaw teg ma ci loxo sëñ Saliou mu àggale ko waaw di sant sëñ Moutala Mbakke góor yàlla waaw sëñ Modou Kara nga koy wax démb moom itam ñu koy sant ñëw na fi démb nee na Kara sécurité bii nga xam ne ñoo wër fii yëpp di sécuriser fii yëpp sëñ Moutala moo ko wax def ko mu créé ko kon nag sëñ Moutala moom nañ te jiite na kuréel bi ay yoon dal kër colonel Mage fii ak soxna Kati Diop. tey jii fa la sëñ Fallou dal di sant soxna Mbay bàjjan ñu koy wax bàjjan affectueusement bàjjan soxna May dafa woo soxna Soodo xuma mu ñëw mu ne ko ku jiite kuréel soxna sooda ne ko man la mu ne ko déedéet du yow man mii maa jiite kuréel waaw ah, kon nag kuréel bi moom boo ko xoolee nii rek xam ne dafa am ñu ko téye njabootu sëñ Tubaa yëpp ko téye ñoom waaw ñoom ñëpp njabootu sëñ Tubaa yëpp da leen neex kon nag nañu sant ñëpp duma ma fàtte nag di sant ñi nga xam ne ñoo jiitee woon kuréel bi téye ko maanaam muy bàyyi Nasir Touré waaw yaram bi xaw a sutante ma nga toog bu lool lool fii lay ne bàyyi Baba Guèye mi ngi fii sëñ Cissé Murit mi ngi fii sama wet leen sant bu baax ñooñ bu leen tuddee rek tudd naa kuréel bi yëpp waaw di sant représentant chef de l'État ministre d'État Mbaye Ndiaye ñun nag président tey moom li mu ñu defal moom dafa rëy ndax tànnul ñu koo xam ne dafa bokk ci ñun ne na nga dem jiiteel ma représenté ma muy ministre d'État Mbaye Ndiaye mi toog kooku kuréel bi yëpp war a sant waaw di sant nag président ndax wax dëgg yàlla bañ tàmbalee ba tey président taxaw na ci yëf yi boolu ñoo gouvernement am wax naa ko waxati ko ay CRD CRD boo leen gisee lépp aw yoon nii tey loolu la gouverneur ministre de l'intérieur préfet sous-préfet ñëpp ba ci commissaire lépp lañ def defal nañu sax plan de circulation ak arrêté préfectoral loo xam ne musta am bloqué yoon yi defar lépp ndax travaux yi kon nag loolu dañ koy sant di gërëm du ma tëj te santuma nag suma xarit suma xarit soxna Baali taxa moom dafay sama xarit lool lool lool gis ngeen ko ñëw na tey tey yaramam sax kiiwul waaye dafa ne faw mu ñëw Touba la jógee ñëw ba fii ba pare teg ci nag sol ay tenue ni ñëpp ànd ak délégation loolu man neex na ma lool waaw di tëjaale di sant sëñ Amadou Ba ministre des finances taxaw na ci bis bi Abdoulaye Diouf saar taxaw na ci bis bi le maire Moussa si taxaw na ci bis bi moom dafay fekkee réunion yi tous les jours ñëw na léegi toog moo ubbi kàddu gi di sant ñëpp daal day wax daal sama xol sedd na hmm? waaw day wax sama xol sedd na guy ñi ngeen defee nii rek noonu la ñi ngeen toogee nii dal teeral teeru gan yi bu ñu gan yi noppee bu ñu demee ñun ñu continuer cant ba fajar allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf aousubillah bisimillah wasalatu wasalaam ala rasulillah alhamdu wa shukru man lillahi ala nabi waladi abdillahi tuuba li abdin muridin saadiqin lahumo bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati inna allazina saarahu li xidmati fa lahumu diyaara wasal jannati sadid lisaani nawil janaani safi amaani wazid balaay mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñi seetaan ñëpp di jiital ci nuyoo beeg ziar bi Cheikh Seydil Mokhtar di ñaan sunu borom yàggal ko fi. mu ànd ak wér ak mucc ak mbooleem njaboot Cheikhul Khadim rawaate li nga xamante ni sëñ Cheikh Amar amul lu dul bis bi ndax sëñ Saliou moo ko jël jox ko donc keneen ko sëñ Saliou joxat nii ma ko téye noonu ko téye kon daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni bàyyi jil daal kontaan nan Cheikh Amar nag am na waay woo xam suñu dudu fay ku mel ni sëñ Saliou jëlub liggéey jox la ko loolu ñëpp ko bëggoon am ñëpp ko bëggoon am kon ndokk bi mu ko amee moom ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah Jangan lupa penuh bergerak. ci leen ko ci leen ko barkeelu kenn bu ngeen ci toppee rek du natt bu ngeen ci toppee rek kenn ku nekk na barkeelu sorry kenn ku nekk na barkeelu am am ni mooy yoon bi rek ne la seen saara oo bi ximmatin xoloo moo deer amiin bi sant yàlla sant yonent bi di sant Serigne Touba suñu yaakaar fii ak fa ñu jëm Cheikh boo gisee ma defal ko lii te xel kom bu nekk bu ma sa wootee moom moom mooy woon na ma bu ma sañoon nga ñëw ba ren jii mi ngi ko fekk Inde mais daf ma woo na ma xaasim ma man ma maa ngi Inde nii ànd ak président de la république mais dama bëggoon ni nga daan def daaw nga def ko kon kooku xam nga ne ànd ànd dëgg la du ànd caaxaan. ba gis ko mu bëgg Serigne Touba lool te man Sénégal yëpp xam nañ Serigne Touba laay nooyee donc pour ñu jubóo ma ne moom day yomb mais am beneen côté boo ko féete aussi ma koy ma nekk avocat am Serigne Touba daf loolu ma nekk avocat lépp lu mu bëgg dugg dana ma laaj ci ma xalaat ma koy conseiller donc bu ñu amee bis bu toll nii moom Serigne Touba jox na ko sutura boo xam ne lépp mën na koo def mais ñun ñi xam ne ay nitam lañ bu fekkee ne Serigne Touba am lu ñu baax bi lu mu tuuti tuuti. ñu ñëw yëkkati ko pour liggéeyal ko Serigne Saliou pour teg ko si loxoom parce que mooy suñ jëwriñ Serigne Saliou ñu ñëw teg ko si loxoom pour mu àggale ko Serigne Saliou loolu loolu dong lañ si jublu. wax ji nag du bare parce que man li tax may wax tey nii kii avocat bi maître Khassim Touré dafa wax lu foor parce que papam dara la woon ci réew mi lu rëy rëy. walaay Cheikh Touré ngeen gën a. walaay Cheikh te loxo frère am Fallou te loxo Mbaye Touré ñëw bi ci sama bureau ne ma ne ma proviseur mu ne ma ñii de mm-hmm. maa koy maa la koy dénk parce que doy nga ma mm-hmm. ma ne ko ah El Hadj ah, yow li ma sas bari na di rëy na di mm-hmm. ba ñu weetee nag dafa am lu mu wax ma gis ko it ci maître moom dafa ma déey ci maître loo xam ne pour bañ ay jalousie yooyu du ma ko fi wax maître Khadim Touré nga ne nga ne préparé woo soo préparé woon musiba wax nga lépp ah orateur émérite élève damay commencer ci élève élève sérieux travailleur assidu ponctuel bëri bëri naa jàngale naa ñu ay milliers milliers mais ñu ñu bëri mënuñu am li mu am Khadim Touré dafa dafa dafa am fayda am sutura am teraanga xam lan la war def xam gëddam xam ne waa kër sëñ Touba la bokk di ko wane plusieurs fois meneur la woon tuuti dina yëngal école bi waaye tout ça intelligement avec intelligence ak discipline ak correction la daan def euh, moo tax tey bi mu nee ñëw dafa ñëw indi teraanga bi ma ne ko man maa koy moom maa koy wax parce que ni nga mel ak man ba ma ko gisee ba ma gisee ba ma koy booleeg cheikh mi dama ko ne ah man daal am naa koo xam ne suma doom la ci papaam suma jarbaat la ci suma rak ci yaayam ma ne ko kooku nag naa boole mu ne ma ne ko mbaax na mbaax goo xam ne boo moytu sax da ko mere xamul déedéet xamul ñàkk kersa xamul yooyu naa ko wax naa ko wax benn secret bu ma koy wax en doucement moom te mosuma ko wax nag mi ngi nii xamul ma ko wax bu nit ñi ñëwee di ut alal jox leen alal waaye suñ xamoon li ma xam

presque de naissance loolu moo continuer nag ba léegi dégg nga Cheikh Amar a ko gërëm Sénégal ko gërëm ñun mbokkam yi gërëm nañ ko xarit yi ñu ngi nii ñëpp gërëm nañ ko lépp loo xam ne neex na sëñ Touba mu ngi koy def lépp loo xam ne d'ailleurs neex na julli sax laay wax mu ngi koy def mu ngi koy def partout donc man euh, sëñ Xaasim man su ma xamoon ne yaa ngi def li ma jiitalu ci sax def ko ndax yow suma doom nga wuti mu doom bu wóor nga yow dama la def comme taaw kër gi waaw te gis nga ko it def nga ko ñëpp a ngi koy gis di ko wax eh, monsieur le maire moi man ce que c'est qu'un maire ayant été fils de de de d'un maire et ayant participé à à plusieurs élections de maire dans ce pays donc man xam naa luy maire ma su mais soo jógee ba nekk suma jarbaat bi nii suma doom ji vraiment loolu dama ci gërëm di ci bëgg di wax ni famille bi yëpp kontaan nañ ci dina nekk moom. te nag am na benn personnalité bu max ne mas la ma ko présenté moom mii Cheikh présenté personnalité bi daal di ne ah man daal Cheikh daal bëgg naa ko waaye man daal euh, man daal ku ma ku ma war laa bañ ma ne ko wax nga musiba kii da ndeyam ak baayam du ñu war maamam bi kenn du war xamuñu fu war war xamuñu fu war féete ba demee ba ca kanam defe naa moom moo war tuuti kon nag tey bésu mbégte la tey bésu yéene la yàlla na Xaasim Touré li nga indi fii yàlla na yàlla defal ko ay milliards. bis bi ñuy amoon fii ci Mbàkke te di ci fàttaliku feeñu jamono Serigne Touba Cheikhul Khadim soxna Bali Mbàkke moom Serigne Soy bu nekk ci keppaaru Serigne Mountakha Bassirou. war a yëkkati ay kàddu nag ci ndigalu sëriñ bi soññ mboolem ñi nga xamante ne bi ñoo di daayiray maam jaara yi. maa ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu sama mbokki taalibe yëpp di leen yëgal bis bu rëy boo xam ne sëriñ Sidi Maxtaar moo ci joxe ndigal mu jaar ci sëriñ Muntaxa mi jawrinam jaaw ci sëñ Abdoulahi mi nga xam ne moo fi borom saam tey ci kaw suuf yàlla dogal. dafa am genn kuréel goo xam ne Serigne Moustapha Mbacke moo ko jiite muy sunu doom ànd ak kuréel gu mag bu nekk fii ci Mbacke Bawol ñuy màggal bis bi nga xam ne ci la ku tedd ki gane àddina ngir ñëw àddina di xattali mbindeef yi bis boobu la màggal ca Mbacke Bawol mu tombe ak ñaar fukki fan ci weeru tamxarit di nekk la 11 octobre ci weeru tubaab di bisu àllarba bis boobu nag ñépp a war ànd màggal ko ndax ñun amuñu lu ëpp bis bi nga xam ne ci ku tedd ki ci la ñëw àddina kuréel bi nga xam ne ñoo koy def nag di ko def ca Mbàkke dafa am lu ci yees tey li ci yees tey mooy moo waral sama kàddu gi mooy dañ koo jël bis bi jaglee ko soxna jaara tudde ko soxna jaara dara jaale ko soxna jaara moo waral sama kàddu gii nag may woo képp koo xam ne soxna jaara lañ la tudde rawatina ñi nga xam ne ay sëti sëriñ bi lañu ak nu mu ca mën a sotoo maa ngi leen di yëgal bis bi di leen xam ne bis bi seen bis la di ci woo itam bépp daayira maam jaara ak fu daayira mën nekk cay tuddoo daayira soxna jaara maa ngi lay yëgal bisu soxna jaara bi di bisu sëriñ bi ca Mbàkke Bawol di leen ñaan nga ñëw teew si fa ndax ñun ñoo war a ànd taxawu bis bi ndax bu nu yàlla taw feexalee li may wax bis bu nekk ñu tudd ñu soxna jaara ñuy defal màggal sëriñ bi bis bu mu ñëwee àddina dara jaale ko soxna jaara turandooy soxna jaar yi ñoo ci war a jiitu ñoo ci war a mujj maa ngi leen di woo ci bis bi di leen xamal ne bis bi seen bis la ku mën a jàng xasaayit mën a durus na nga ñëw jàng xasaayit ku mën a jàng alxuraan da nga ñëw jàng alxuraan ku mën a def salaatu alaana nabi na ko def te maa ngi ñaan ñëpp ñu àndandoo ñëw teew si ca rawatina sëti sëriñ Tuubaa yi nga xam ne may wax ci seen kàddu ñu tudd leen soxna jaara maa ngi leen di ñaan ñu teew ci bis bi ànd ko ak kuréel gi nga xam ne sëriñ Moustapha moo ko jiite ñuy màggal bis bi ndax bis bi seen bis maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous ca Mbàkke Bawol na ca ñëpp teew rawatina njabootu jërë ngeen jëf. mbokk yi kon nag kàddu yaa ngi noonu tukkee ci soxna baal yi moom Serigne Mountakha mu doon yëkkati ay kàddu ci ndigalu kilifaam ngir soññee ci bis bi nga xamante ne bii moom la ñuy fàttaliku feeñu jamono Serigne Touba fii ci Mbàkke ci njiitul Serigne Moustapha Mbàkke moom Serigne Bass Sam bokk jullit yi bokk taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalu Serigne Serigne Makhtar Mbacké xalif général des Mourides ci kilifteefu Serigne Abdoulahi Mbacké xalifa Serigne Mamor Diarra daayiratul muxlisina wal muxlisaati kuréel gi màggal bés bi ku tedd ki Xaadimu Rasuul Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul feeñe jamono ca Mbacké Bawol ñoo am mbégte di yëgle ko woote bés bi mu di fukk ak ñeenteelu édition bi ñu jàpp ko ñaar fukkeelu fanu tamxarit dëppook àllarba fukki fan ak benn ci weeru octobre 2017 ca Mbacké Xewar kër Mamor Diarra muy bésub kenn ki yàlla kennal ñu war koo kennal muy kenn ki kenn dul moom waaye xettali jàmm yi borom yërmande di borom Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul ren ñu dara jàlle bés bi soxna si ci màggal gi Mame Diarra Bousso mi liggéey liggéey bi ci teewaayu Serigne Mountakha Mbacké ibnu Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul njiitu kuréel gi Serigne Moustapha Mbacké ibnu Serigne Bassirou Sam ak mboolem membre daayiratul muxlisina wal muxlisaat yi di ko yëgal njabootug Serigne tubaa bi yëpp cheikh yoonu murid yëpp këru diine yëpp mbokku jullit yëpp rawatina mbokku taalibe yi soppe yi ak wëllëre yi programme bi nii lay tëddee. jërëjëf euh, waa régie asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi xam naa ñu jégaluwaat bu baax a baax rek euh, jëkkanteeg waxtu wi li nga xam ni moo ñu dese ci ay simili ngir seen émission bi nga xam ni mooy xew-xewu diine ji. di ko tàmbalee saa su nekk nuyoo ak ziar jiital ci Cheikh Sidil Muxtaar ñaan sunu borom yàggal ko fi mu ànd ak ak mucc. ak mbooleem njaboot Cheikhul Khadim xew xew-xew yu bare lool xam ngeen ko tey jii ñu ngay fàttaliku ki nga xam ne mooy sëñ Dame Abdourahmane Lo bi fa sëñ bi jaaree bi mu jógee ci yéen démb ñu ngi doon fàttaliku sëñ Modou Moustapha Falilou sëñ Modou Bousso Dieng ñu ngi jógee itam ci li nga xam ni mooy màggalu basam xam naa moom la ñu euh, sunu réalisateur li indil ñu barkeelu ci tuuti euh, di suba ñu ngi war a jëm Gédé màggal sëñ Mbacke Bousso moom it dem gu fa sëñ bi demoon foofu ca Gédé buñ ca jógee ñu ngi waajal nag bés bu mag bés bi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa tànnoon nag ni bésam bi ko gënal ci bés yi mooy bés bi nga xam ne nag ci lay eh, deyaaleeg sunu borom nag ba faaw bés boobu nag ñi ngi ko demal ba tax na danaa am gan gu mag koo xam ni sëñ Abdul Xaadir sëñ Jili Ba war a ñëw ñu waxtaanee loolu ñu amoon ci yéen nag mu nekk waxtaan wu yaatu waaye jafe-jafe ci wàllu xarale gi moom moo waral ñu yéex a jàkkaarloog yéen nii di waxtaan ak yéen waxtu yi sax mi ñu waroon fekk xel kom waaye jiitu moo tax ñu indi leen tuuti itam ci image Xelcom ngir fàttali leen liggéey bi nga xam ni moom lañ fay liggéeyal euh, sunu borom subhaanahu wa ndax Serigne saaliw mi laajoon suuf soosu jubluwu ci woon lu dul liggéeyal sunu borom subhaanahu wa taala suufas Xelcom gii nga xam ni itam fukki daara ak juróom ñetti daara yi nga xam ne moo ci nekk ci loxo Serigne Cheikh moom Serigne saaliw at mu nekk itam mu woote fa ngóob moo xam ni dugub ji ni leen koy leerale saa su nekk moom ngeen gis noonu dara du ci génn diine l'islam dundu daara yi daara yi jàng alxuraan lañ fay def jàng xam-xam liggéeyal sunu borom bu ci la ca des mu mboolem jàkk yi ci biir réew mi ak jumaa yi mu tasaare xéewal googu ci ñoom ay tonnes yu baree bare lay doon ba tax na koon loolu mooy euh, liggéey bii nga xam ni tàmbaliwaat na tey ak suba incha allah lay doon ba dimanche si suba ndax euh, bu fekkee ni mbooloo mi sax mate nag mën naa am bu subaa rek ni li ñu daloon daaw euh, suba rek incha allah ci bëccëg bi liggéey bi mën naa mën naa mat ba tax na kon ku waajul woon boo yeboo waaj ñu daal di dem fekki ña fa jot a nekk sëñ Cheikh Amar jëwlin ji euh, ma nga fa ak euh, ay mbokkam ay wëlëreem ñu baree bare waa kër euh, sëñ Moussa Lakram itam ña nga fa waa kër maam Cheikh Anta Daaru ña nga fa sëñ Saliou Njulul jëwliñ moom it ña nga fa dégg ngeen sax Cheikh Seydil Mokhtar jox ndigal sëñ Cheikh Coro doomam di porte parole mu wax soññe ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey xel koom kon nag Euh, ñëpp nga fa kon xam naa rek damay ànd ak euh, sunu réalisateur demal leen rek màggalu Grand Bassam bii nga xam ni moom it euh, ñi ngi ko doon màggal fan yi Grand Bassam ñu àndoon fa ak Cheikh Mouhamad Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir Grand Bassam demoon ca itam ak ki nga xam ni fekki sëñ Moutala moom sëñ Touba Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy woote bés boobu kon màggalu Grand Bassam ñu barke lu ci tuuti daal di dalal sëñ Abdou Khadir yéen a ngi jàkkaarloo moom sëñ Jili vieux kon waa waa basam a ngi nii a ngi nii ngeen gis euh, jamono yii la cheikh Mohamad Bachir moom cheikh Abdoul Khadir di ñëw euh, fii nga xam ni moom mooy euh, ci bërëb bi nga xam ni fi lañ doon màggale màggal gi basam nag ñu fàttali rek ni sëriñ bi li waral xew-xew bi mooy bi nga xamee ni tubaab yi juboo nañu ci yóbbu ko ci géej gi bi mu jógee ndakaaru te ngeen gis sànq ñu wane wanewaat fàttaliku julli géej gi ak Cheikh Makhtar Diouf muy jëwlin ji sëñ bi Conakry lay jota escale ñaareelu escale bi mooy Grand basam Grand basam euh, am na at moo xam ni euh, kin fa doon seet pour yóbbaale ko yàlla dafa dogal gis ka daf leen jafe woon am na at moo xam ne sax buuram ki ko doonu tey jii nga xam ne roi du Bassam lañ koy wax roi de Bassam moom ñëwoon na ci xew-xew bi ba nga xam ni looloo waral sëñ bi def fa ab diir nekk googu mu fa nekkoon nag moom la ñuy màggal nii at mu nekk xalif général yebal Euh, délégation ñu ñëw ti ren nag ñu tuddee ko Cheikh Abdoul Khadir suñu turandoo sëñ Abdoul Khadir ñu tuddee ko ko Cheikh Mouhamed Bachir ànd ak sëñ Abdou Samane moom sëñ Abou Madiane Chouaïbou ànd ak itam ay ay ay ay doomam euh, ku na sëñ Cheikh Mariam Mbacke ma nga foon sañ Basirou moom sëñ Khadim Awa Ba sëñ Cheikh Mariam moom sëñ Abdou Karim moom sëñ Cheikh waaye àndoon itam seen ay jigéen soxna Baali mi ngeen gisoon léegi mu doon soññ ci màggalu euh, ñaar fukki fanu muharram gi muy gane ak àddina Cheikhul xadim sëñ moom mbiram yëpp dafa yéeme ci muharram ndax ci la gane àddina ci la làqu itam ba tax na loolu yëpp itam euh, feeñ na ci sunu jataayu tey jii lu jiitu ñu jël antenne bi jataay baa ngi noonu mbokk taalibe yi jóge fu nekk mbooloom istade la woon fees dell li ci biir baas bi rek la ñu gis